aje léegi nag yegg si nañ ci village olympique bi fii athlètes yëpp yëpp yëpp am nañ fii ay li nga xam ne moom mooy ay stand athlètes yëpp fii ñu nekk donc fi mooy këru euh, li ngay li ñuy wax les JO Jeux olympiques yi fi mooy kër bi parce que fii la athlètes yi nekk fii la activités yi am fii mooy seen village village olympique dara du leen umpu ñu dugg ci biir ma woon leen

c' est gratuit lépp c' est gratuit pour at bi voilà da nga ñëw rek jël. kay kay nit li c' est Mathieu. li c' est Oumy. elle elle c' est Oumy. Ah Oumy yéen a ngi cool. mais xam ngeen ni waa réew mi yëpp ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen suivre. ah vous comprenez pas. tout le Sénégal est derrière vous Merci. aussi. Et puis, on vous encourage aussi. Merci, vous êtes prêts, quoi C'est prêt pour les saison prochaine. Hein. Très grave, très Allez, courage. Allez, Mathieu, tiens des choses. Elle est ambassadrice pour JOJ Dakar 2026. JOJ Dakar 2026, elle est ambassadrice. On est au mieux, hein <laughs> C'est une star Allez, <laughs> t'es venu Tiens Dieu, Dieu, tiens Dieu. yéen a tey jii ñu bëgg a construire pour. léegi suñ paree après dañu koy maye def ci leen ay bureau wala ay kër logement fii àlloo fii gëtaloo fii gëtaloo ko yëpp France gëtaloo léegi ñu def ci yëpp loolu moo ñuy wax héritage des Jeux olympiques waaw voilà hôpital yi nga gis nii yëpp instant fii nii boo fi duggee athlète du fay lekk du fay naan du fay dara. du fay faju du gratuit tout est gratuit tant que yaa ngi yor sa accréditation lii C'est gratuit. Waouh. Gambien. Gambien. Ah, c'est ah, ah, ah. eh, bien. Gambien ak Sénégal du la eh. saa benn la waaye. muy góor da ngay fay quoi. waaw mais Gambie suñu doom. yow yaay kan. Ousmane Nane. you come from Gambie or you living here. ah Thaïlande la jógee donc mais il représente la Gambie moom tamit suñu doomu réew la. jaajëf bro. gën <laughs> la <laughs> bàyyi saa ñoom tos. ak booy ah wax nga dëgg ku la. espace athlète bi la donc espace bii mooy seen espace de loisir fii la ñuy ñëw foo def lu nekk ba pare athlète bu ci nekk boo ñëwee fii am nga droit am benn portable marque portable mais portable ñom partenaire la marque donc athlètes et vraiment c'est extraordinaire C'est cet espace de loisir la dañ fi ñew fo donc euh, athlétisme gars du ay guys. Euh, Rosita. Euh, je viens, je suis originaire du Cameroun, mais j'ai vécu 5 ans, 6 euh, ans, j'habite toujours au Sénégal. Je travaille bien sûr avec l'organisation en quelque sorte qui est derrière cet événement. Nous sommes tous droits de Paris, avec mes amis, là-bas, là-bas. On est ici, On vous envoie plein de bisous.

village olympique fi athlètes sont avec fi restaurant les, les, restaurant bi village olympique ba free athlètes fi amul <laughs> Yes, yes.

ñuy toog dong, gis ngeen grand Mamba ñi ak yeneen athlètes yi. gis ngeen nag booy bi fi ñu toll nii kii moom ngeen baal ma ñaan yeneen athlètes yi mais ma fàttali parce que loolu baax na loolu yëngal la donc mu ngi nii donc mu ngi gis ngeen ses performances gis ngeen ni ko ñëpp di xaaree donc dañu lay ñaanal tey jii lan ngay wax waa réew mi fi ñu toll nii dañu lay seetaan. waa réew mi dal ñu ñaan rek que ça soit man monsieur Abdou Diagne di ko gën convaincre ñi damaa ñoo des quoi dañu jaay doon ñaan rek. c'est quoi incha nan la ñuy def nii ñun ñuy def ba nga daw. genre waaw ni ñuy def ba nga daw quoi parce que dama dégg il faut nga tiit pour daw. wax loolu. ah dégg naa loolu. <laughs> yow dina mën a tiital yow yow la nga xam ne bu ñëwee rek dañuy xool nga daw quoi. Eh, ma ko la lan ah, ngeen. man. yéen ah. <laughs> a gën a yomb ah, nga xel nga tiit. man tiital yi yow nag. waaw yow da koy yóbbu. non non man vraiment la tiit. <laughs> teeg na teeg ak yooyu ba nga jëf am nañu jàmm jaa ngeen jëf ba pare lépp am na fii pour waxuma la lek bi ak mais les vélos ak trottinette ak yi les navettes lii daf fi lay est ce que ay roi wala ay prince de damay ragal ñu dund fi ba fi dem ci ni ñu ci village <laughs> am fay glace do fay lek do fay do fay nga dem ki nekk sa koñ yaakaar ni day continuer. <laughs>

Bassirou Diomaye Djakher Fay, il a signé paix et sécurité dans le monde Adja Gaye ñu ñibi ñibbi nañ ci village bi gis ngeen li xew ci village bi donc village bi comme genre xeetu royaume mën nañ ko wala ben république bo xamni ñom ñoko mom sen ay loi bopp sen lek bopp sen nanu bopp sen yëfu bopp yo xamni ñom ñoko mom donc athlètes yi sont bien gâtés fi nga xamni fi lañu ñu nekk donc ñëwoon nañ wan leen village bi mënuñu leen wan village bi yëpp yëpp yëpp mais luma gëna gën metti ci village bi moy dama dem dugg ci euh fi nga xamni ne fa la américain yi nekk visiter xol ñoom Lebron ñun ñëpp ñu toog di waxtaan téléphone bu fay.